julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu bo nuyu bu baax ci nuyoo bi ni suñu borom tànnal muy ngeen di nuyoo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bii di yowmul jumaa di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu nangul suñu mbooleem jëf yiw te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te defal ñu tawfiix tawfiix yi ñu amul njub te saxal ñu ca ba dara bañ ñu caa jëlee mbokk yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk bu baax ñu dolle ragal sunu borom subhanahu wa taala bayyi xel suñu digg suñu borom ci diko ko fuglu waxtu jot waye ragal ko it ci lim ñu dénk mom ñag mom moy luy ñangal sunu tay ak ëlëk ñu baye ci xel suñu borom ta xam ragal yalla moy teraanga digeen ci teraanga juddu bo mën bok ak daraja jo mën am bo umu ragal yalla umu dara waye bo amé ragal yalla askan wo mana bok ak lu seen daraja daraja tollu jappal na yalla ko moy honneur bi gëna reuyit nit ki poste bu mëna occuper ak poste ba lu muy nuru nuru daraja bu ci bolul ak ragal yalla na yëg ne amul dara waye moy kom mo xamne am ñàkkoo dara bo xasse ba am mo ragal yalla mel na nga denc nga lepp waye yu aduna ak alakhirah mi ngi ci ragal yalla taxit aduna ak alakhirah mi ngi ci ragal yalla yalla ñu ko suñu borom boole defal mbokk yi bokk na ci li ñu xel ñun julit ñepp képp kuy doomu aadama war na ko bàyyi xel waaye jullit ñi ñoo ci raw jukko ju rëy ju rafet ju war ju war ci bépp jullit mu melawoo ko lislaam jàngale ko saxal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñam yaroon mu yar leen ci loolu mooy nit ki xam xam lan mooy masuliya mooy ku ñu responsabilisé ku nekk nga xam li ñu la responsabilisé lu mu doon xam nan nga ko war a ak la moo la ci war fekk bu ëllëgee loolu day lu rëy rëy loo xam ne gal julit ñi soññi leen ci muy jëf joo xam ne nag mën naa jural nit ki tex ak tey ak tex ak ëllëg jural ko muccuk tey muccuk ëllëg jural ko dund gu teey ci àdduna it waaye am dund gu teey bu demee ba sax am tex ak ëllëg te loolu mooy muy yëg yëg ay warteefam yëg ay warteef mbokk yi lu yaatu yaatu la ci bërëb yu bari la ci jiitu mooy nit ki yëg li ko war diggante ma boppam mooy bakkanu boppam bi loolu moo ko ci war ci sellal ko sàmm ko xëyee ko ci ak njub mu di ci jaar wattandikoo loolu lépp lu ab safaan loolu waru warteef la ci kenn ku nekk mu yëg loolu ci boppam pexe nag ba mu ba mu jëmm ci waaye yëg nag li ko war ci li ko wër ci ak njabootam tàmbalee ko ci soxna doom ak ñu njaboot yi ñëpp te lislaam gàll ko ci ñoom ay warteef xam warteef yooyu ko ci war mu taxawee ko ci anam bu gën a rafete ndax la bokk na ci liy tax bokk na ci liy tax société bi mën a dund dund gu tey bu kenn ku nekk xamee la la war ci sa njaboot nga ko njaboot gu génnee kenn ku nek la nga bëgg fekk sa kër rek mo nga fekk ci mbedd mi waaye bokk na ci yëg responsabilité nit bu ko dénkee ab liggéey nak mu xéré ñako taxawé ko ngeen ci taxaway wartandi ko lépp lu cey nuru xit ba lepp lu ko yaq waye bokku na ci yëg responsabilité képp kuñ far kuñ fal ci poste daraja bu mëna doon nga yëg responsabilité bi ñu la fale bala ci war nga def ko ba daray lor bañ ca tabbi lolu bu ko ma maasee yëg ma waral ñun ñepp dañuy dund dund gu tay dund gu neex te yëg googu nag warul kenn bàyyi kenn ni mu waree mag noonu la waree ndaw ni mu waree góor noonu la waree jigéen ni mu waree ñu yilife noonu la waree ñu yilif kenn ku nekk am na sa responsabilité fu mu tàmbalee ak fu mu yem fexeel ba la nga war a assumer nga assumer ko bu ko defee jaww ji dina dina ñoŋ dund gi dina tey loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ne Ibnu Omar moo ko nettali nee na dégg na bis yonent bi sallallahu la wa wax ne kenn ku nekk ci yéen na yëg ne ab sàmm la te boo léegi dina taxaw ci kanamu suñu borom. mu laaj ko lan doon sàmm nan la koy sàmmee bu yemoon foofu rek kenn ku nekk war na cee dégg ne yow am na lu ñu la sàmm loo nga war ko sàmm waaye daa leeral lu bare bari tàmbalee ci imaam bi nekk ci kanamu mbooloo mi baatu imaam nag buñ ko waxee bu ko kenn jàppee rek kii jiite julli farata da caa bokk waaye képp kuñ dénk ndomb ak tànk nga yilif mbooloo ci na nga leen yilifee yëgal ne am nga masuliya ca ña nga yilif loolu imaam bi ci lay tàmbalee chef de bi ci la bokk boo ko rombee jëm ci kaw ñuy doonante ci IAS ni mi doxé masalan ñu ne préfet sous préfet gouverneur ba korom mi dem président de la république kenn ko nek am nga masuliya bo xamné moy taxaw dila xaar ci lañ la dénk loolu nak lo wara yegg la masalan barki démb rek ji ji ji xewon ji ji xewon ci réew mi te lu ci lo xamné xel du ko gawa fak muy fukki gone ak ben yu faatando ci wenn waxtu faatando ci lak ci faatandoo mu metti yàlla na yàlla def dawlu yu loolu bam xewé responsabilité yu bare bare bare li ñu par la sa da ci feeñ ñu bari dañuy toog rek nga dégg bañ xëyee ñu ne ministre bi na fi jóg ministre bi na fi jóg xëy na ka ka yor atte ba dégg loola tax mu jële ko fi waaye léegi jële ko fi ndax dina saafara dara koo xam ne bi nga ko fi jëlee da nga ne kisas kisas ci moom nga xam ne moo ko gàddoo ab liggéeyam nekkoon directrice de santé bi lañ jël ne ko kii kat li def dara baaxu ci waaye yow mi ci ginnaawam ko ay tànkam kon na puus nga toog loolu ndax mooy responsabilité bu bu xel man nangu ci xel mu mu mu jub te rafet léegi ndax loolu day yem ci ministre bu dong ndax ci moom la war a yatuna hôpital da am ñu ko tabax bi koy nguur tabax am na ñu ko tabax lo ñu am yuñ ci def yo xamne kenn ku nekk ñom am responsabilité ci fukki gëna yoy ak ben faatu bu dé bakkan bu ñuy gaddu la du ci gëne njitu réew mi képp mo koy gaddu waye nak mo ci ëppale ñëpp na ko ndax bu boobaa wàccee ab ministre dong doy na ca déedéet ndax wacce ministre bu noppi la fa nekkon nga tek ko ci moy yow mi jitu won demal waye ki topal sa ginaaw na ñëw te ñu bokkon benn liggéey loolu ndax dina saafara yëf ci lo xamne da xew ci biir réew mi ci bërepp xew ci lingeer ñeenti dom, fa ñeenti doom ada faatu ci mutul at mu xawat ci tiwawon yobbu fuk ak ben ndax bobo ñom bu ñu yëgoon responsabilité ni ngi ko yëgee ba ca ndax dinañ sàggan kon ba muy amaat ci tiwawon xayna mom mi nga xam mo responsabilité bu mag bo bëgg na mbolé hôpital yi réew mi ñu saytu len ba lu mel noonu mom moy fep bo xam service bi ñuy wax natul ci amna fa nañ ko gëstu ba lu mel ni du amati waaw lolu yik responsabilité lolu moy liko war waye nak wurtu yam rek ci ñu ko ne diw ak diw diw sax nga moko moko feto féetoo nak kep ku nekk ci barap te yilif mbolo yëgal ne yëgal ne am nga ci wàll loolu moy ku ci jitu ka ca top moy goor go xamne ne yoruk njabot te war leena sam na yegne ne ab sam la bo legge des na ko nak hadith bo hadis yentibi newon na di nga gis ëlëk yamal xiyam nit ko xamne ne atta nañ ko bay mbiram leer mu ne ñokkat bëgg dem am kenn ci njabootam ne su borom ki dem mu ne ko lutax mu ne ko ah nangam jii kat ba ma koy def ma nga fa woon moo ma waroon na xaaj gi tax a juma suñu borom na ko wàññikul yàlla ñu ci yàlla loolu nag góor gu ne ko yor njaboot te yor kër te yilife war naa bàyyi xel loolu ci soxnaam ak njabootu boppam fexe ba ñu tegu ci njub te mu leen cay gax te mu leen cay gax dama wax ne ñun jafe-jafe bi ñu am mooy li ñu naqarlu ci suñu mbedd yi kenn teguñu ko ku dul góor ñi nag ku dul góor ñi damay wax démb rek maa ngi ko wax dama ne ko jafe bi ngi dund fekk ñu wax ci xew ci dëkk bi ci ñi nga xam ne léeg-léeg dañ leen di tooñee naan dañoo bokkul pas-pas ak nangam ak nangam léeg mu jur ay polémique yu te yàlla xam ne am na ci yoo xam ne léeg-léeg ngi sax jàkk yi jàkk yi da ngay gis ko dugg ci biir jàkk ji léegi di xabdu teg ay loxoom ci dëndam ñëpp bañ ko fañ ko bu ñu wéetee di ko waxtaanee léeg-léeg mu dem ba nga dégg kuñ ne dañ koo sonal ci jàkk ji ngir day teg loxoom ci ay dëndam ba du ci julli seeti te moom mi koy sonal ci jàkk ji miy julli seeti bu bu demee këram fekk fi soxna xam ne du sol jot day lëttu mees mën naa muy sopp yaramam te so tey soxna boppam mu naan ko big naa ci boole ci léegi nag boobaa bu ñu doon xool ci yëg stabilité ndax kii te ki nga xam ne mu ngi góorgóorlu bay julli teg loxoom ci dënam moom ndax warta liggéey ni njabootu boppam nga te buñ noddee si loolu mooy responsabilité ne kon li mu war a sàmm am na lu mu des loo xam ne war na ko sàmm ko loolu julli bu nekk war na la nag ci ñun ñëpp soxna si ab sàmm la ci biir këram ci sàmm njabootam sàmmal borom kër alalam waaye nag sàmmal ko jëmmam loolu moom damay wax ne soxna yu bari dañ cee dégage seen responsabilité mooy sàmmal la seen jëmm ba kenn du leen xool du leen loolu mom bokku ci mom fu mu gën a dange fu mu gëna a fu mu gën a lañ koy solé léeg-léeg sax dañ ci bolé jëfëndiko yo xamné moy tax ku ñu rom nga bay leen xel loolu lu ma wattaliku la kon jigeen ngi ni yëngle ab sàmm la ci bopam bala dara xew ko sam ci bi kër sam sàmm sàmm njabootam mu wat ni légui dal li gëna gatt moy kenn ku nekk ci yeen na yëg ni ab sam la te bu liggéey yamal xiyam dess nako laaj lam doon sàmm nuñ ko samé mbokk yi li nak lu ma ta bàyyi xel la moy waral bu mbir amété kenn ku nekk ci ñun muy def moy na xol bopam mom ba xam ndax lan la ci fii ne liir yi faatu di fukki liir ak benn yi njiitu réew mi sax ku bokkoon ci ña ko fal na nga yëg ne sàggan ngam sàggan ba fukki liir ak fukki liir ak benn yooyu faatu fukki liir ak benn yi na nga yëg ne yow di ci am sa wàll ndax bokk nga ci ñu ko may pouvoir loolu mën a am loolu nag tegtal bi weesuwut kenn ci xulafaaw rashidun dañ dafa toog bis di jooy jooy metti ginnaaw bi ñu ko jiitalee mu nekk xalifa jullit ñi bi ñu ko laajee lu muy jooy dama ne dane moom li ko naqari te mu yëg ko ba muy jooy mooy xam na ne picc ma gën a sori ci àdduna fu mën a nekk bu xiifee bëgg a lekk lekkut wala mu mar bëgg naan naanu ci kawam lañ koy gàll ci kawam lañ koy gàll ana lu tax mooy kilifa jullit ñëpp loolu responsabilité la boo xam ne ku ko yëg ku ko yëg di nga xam li ngay sàmm nan nga ko war a kon bokk yi yëg responsabilité ak joxe ci am gën anam gëm gën a rafete loolu moo ñuy dimbali ba tax ñu mën a dund dund gu teey dund gu neex waaye saa yu kenn sàgganee ci li ko war ba defu ko rek ku nekk ci li la ba bàyyee ba bàyyi li war bu yagge li la wër man la laa toba tooba muy jur moy waral ñuy sagane ak yu bare bare bare li nga tuddu yépp ci ray gu bare geek far geek agressé agressé beeg manam yu bare bare rew mi dafa ñak sécurité ci wét yu bari yoy yépp lu ko waral moy ñi wara gaddu sa lu ñoko rek dégg te nak men rew nag benn dëkk bu mëna développer wala mu sopp ko te ñafa nek nekk yëguñu seen responsabilité assumé ko munta am su borom neena inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim boo boo sax ñuy wax réew mi am nañ téni pétrole ak teeni gaz ak am nañ ay nangami multi multi milliards waaye fii yëguñu kenn ku nekk ci ñun yëg responsabilité am réew mi dem fenn bokku ñu suñu borom nee kenn ku nekk ci ñun yàlla da ko giñ ne fa warabbika lanas'alannahum ajmain hamma kanu ya'malu kenn ku nekk dina wéet ak suñu borom mu laaj ko laaj ko ana la nga nekk won ci dund ak noko doon defee am xam dañ ka àtte bamuy dem suñu borom ne waxifuhum innahum mas'ulun mënugul la dem kat des na ndax am na lu ñu ko dénkoon loo xam ne leer lu guñ ko te war na koo leeral loolu kenn ko nekk ñun dina am jotaay boobu ci kanam suñu borom kon jullit bi war naa yëg ne dañ koo takkaliif li jiitu mooy gàll ko jëf ci sariya mu war ko jëf doon ci responsabilité waaye nag gàll ko jëf ci li ko wër ci ci dundam ci bakkanam ci njabootam ba ba korog mu fi jógee wër ta ko benn yoon te suñu borom nee na nañ yëg ne ku nekk ci diggante asamaan ak suuf ku ne ci ñun bis na ñëw mu doon jaamu yàlla jàkkaarloo moom yàlla xam la nekkoon lépp dara ump ko ca nag mu wéet suñu borom nag dafa compte ba xam li ko dénkoon noonu la ko defee in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani habda laqad asaahum wa haddahum adda wa atihi aatihi yowma alqiyamati farda loolu jullit bu nekk war na ko bàyyi xel kon nañ xam ne masuuliya nekkut bal rek bal bu ñu jël di ko tëgg di rek ku jox aw dem sa morom déedéet waaye yëg-yëg la boo xam kenn ku nekk ci ñun amaana la digganteem ak boromam bu ko dénk mu war ko bàyyi xel waxtuwu wu jot bu koy bàyyi xel di ko contrôler lam ci war a def mu di ko def loolu dina ko musal ba bu ëllëgee yomal xiyaam du ca am gàcca ndax bu ko deful kat bu ëllëgee mën na ca am gàcca ci kanam suñu borom yàlla nañu suñu borom boole musal mbokk yi ñu ngi daal foofu suñu kaddu suñu borom mi am njub te mën a jubal yàlla nañu teg ci yoonu jub te saxal ñu ca lépp luñ jëf bu baaxee kattanuk suñu borom ak xam la yàlla ñu ko nangul lépp luñ jëf bu melee neneen matalik doomu aadama yàlla nañu ko suñu borom jéggal te defal ñu tawfiixi njub تتنك نجح تبارك بيرنتي بي صلى الله عليه وسلم